waxuma la ko. TFM. dama jël prend exemple fii. bi nga xam bi ma xam. benn télé jiituwu jiituwu ko fi. mais yàlla a un sentiment de boycott du président Ousmane Sonko. mooy dëgg lu ma xalaat moom laay wax. et fii ñëpp ku fi liggéey ñëpp ku ne xam nga boo xëyee suba ba ngoon lan nga fiy dund. parce que aussi groupe de presse dafa mën a permettre à nit mu jàng am na ñoo xam ne dañuy investir si presse pour def ko locomotive pour xeex lii wala xeex wala seen ay intérêt personnel il faut qu'on le dise dafa am lu Bamba wax sànq que ni intellectuel yi dafa manqué mais bu fekkee ni tous nos grands journalistes à, à la fin ils deviennent des conseillers en communication wala de ministres wala des trucs donc ñii ñëw ci ginnaaw seen bët ci loolu lay dem te ñooñu aussi il faut avoir le courage de ci ñu gën a mag fi ñuy mujjee ñu si gën a bëri dañuy mujjee ci ay position yoo xam ne dañuy ànd ak diw donc du ñu nekk ay journaliste éternellement donc ñu nekk si sa ginnaaw dañuy aspirer à ça parce que jamono toll non dëgg la jamono toll na foo xam ne pour man oui il faut pas que ñu jël le rôle d'un journal ñun ñii ñëpp xoola ma ni ñun ñii ñëpp ay journaliste lañ léegi kaay ma wax la dara waaw mais mais mais a me laisses terminer ou non. ah mais ma ma eggali. mais ba femme fu may mais il nga bàyyi ma wax. non toi tu ba du ma wax li ma bëgg a wax. xamoon naa ni su ma waxee léegi nga tëb mais di ma bàyyi wax. di ma bàyyi wax li may wax. dama ne waaw mais non il faut ma laisser terminer. Charles il faut nga déglu ma xoola wuyu ma Charles déglu ma. su ma woor lu si sa yoon non Charles Charles. moo tax da nga dafa ndànk bàyyi ma eggali. amoon naa ne bu ma duggee duggee xam nga dama ne. dama ne dama ah. ne dama ne. boobu nee na léegi moom journaliste. non tout le monde peut être journaliste. mais non il faut ma mais mais. Ah, tout le monde. waaw mais non mais non mais il faut nga il faut nga bàyyi ma ma wax. dama ne la bëri na bëri na ñoo xam ne ñi ngi woote seen bopp wax seen bopp journaliste nga toog ak ñoom dem ba ba ba jóge fi mooy li Bamba doon wax nga xeeb leen. et loolu c'est dans tous les secteurs. suñu niveau d'éducation dafa wàcc wàcc boo xam ne dafa làmb secteur yëpp il faut que ñu d'accord ko jamono dafay dox te ko pour man wéy benn formation booy am CESTI ñu jox la lii oui et après soo watt les gens non nit ñi dañu am neneen lu ñuy réfléchir donc pour revenir à lii lu mu doon wax d'accord ma si moom que ni nit ki ku nekk am na sa xol pour man am na fooy toll ah fi fi nga xam ne intérêt li nga bëgg nga gis foofu la sa xol di nekk mais du nekk si nit pour man kuy si def choix politique fexeel ba mu wañ a nekk ci nit na nekk ci bilan wala mu nekk ci programme wala mu fekk mu nekk mu nekk ci ay conviction donc je pense que il y a des choses yoo xam ne ñu toog fii parce que position yi ngeen di jël tey jii nii boo jëlee président Ousmane Sonko il va faire tous les plateaux sauf la TFM pourquoi moi j'ai une question à te poser pourquoi on ne peut pas on a reçu Ousmane président Ousmane Sonko fii peut-être avant que kenn di ko recevoir maa ko maa ko ànd ak moom fii ñu ñu si couloir yi teg ko fii carte générale ñëpp di toog di seg di kii on a besoin de lui on a besoin de de de de Abdoul Mbaye on a besoin de de de de de Thierno Alassane Sall on a besoin de tout le monde. de El Hadj Diouf voilà de non de mettre de mettre El Hadj Diouf de tout le monde. donc aujourd'hui aujourd'hui li nit yi di wax moom mooy que am na ñoo xam ne boo amee benn hostilité bu mel noonu par rapport ak ñoom ñu xeex ak yow. ah non c'est pas le rôle. non mais bàyyi ma may eggali da nga teg dama ne la am na am na ay ay kii de press yoo xam ne. ay groupe de presse yoo xam ne. wala am na ay site wala télé wala rajo yoo xam ne soo boo boo leen boo boo leen boolewul say mbir ñu wan la ko. et les gens essayent d'être ah d'être plus non non damay wax rek dama ne la tey jii nii fii ñun ñëpp Sénégal la ñu dëkk donc pour man aujourd'hui pour dimbale presse bi il faut que aussi ñu jox leen seen cër seen cër bi mooy que ñi nga xam ne ñoom ñooy aspirer. à diriger ce pays la bés bu ko yoree ñoom ñooy njabootooy presse bi yëpp. donc moment bi ngay xam ne dañuy nekk di aspirer di euh, kii perfection amul fen lu jaar yoon à 100 pour cent amul fen mais si on veut peut-être marginaliser <coughs> certaines personnes ci ay bases yoo xam ne peut-être mënoo ci teg sa loxo bu ñu toogee fi ci plateau bi di ko wax bu ñu ko wax on n'est pas honnête donc aujourd'hui il y a des groupes et il y a des chaînes il yoo xam ne ils sont presque incontournables et ils sont à la disposition de tout le monde. du pouvoir, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Il faut en profiter. Aujourd'hui, l'autre chose qui sa fait aussi, et pour moi, nous concurrencer les, les, les médias traditionnels. Aujourd'hui, les partis politiques, ils montent des groupes de presse. Mais comment monter ce groupe de presse qui sa bire parti politique Mais na

mais nit ñi da nga leen di informer mais boo leen di informer est-ce que da leen di informer par rapport ak yow ses intérêts wala l'intérêt général te foofu la jamono toll jamono dafa toll foo xam ne dafa am yeneen alternative yu juddu plus que coow coow euh, Ousmane Sonko bi bu ci internet nekkul woon mais du toll fii quatre-vingt-dix pour cent wala quatre-vingt pour cent de li ciy génn ci ay documents yooyu yëpp internet la ñu utiliser donc boor bu ne am nga sa ay nit amul benn parti politique ñu ngi may dégg bu am fii amoo fi benn cent wala deux cent jeunes yu nekk ci benn bureau teg seeni ordinateur di xeex di sànn non non mais dama non non non dama ne amul xoola tey jii nii non lii lii dama bëgg nga déglu ma bu baax dama ne la je pèse mes mots Pastef fa APR keneen ak keneen ñëpp am ay nit yoo xam ne ñoo leen di xeexal ci internet bi ñoo leen di bindal ñoom ñooy fiid nit ñi donc moo tax non non non non lii lii lii ñun ñëpp Sénégal la dëkk ñun non non non kawe am na yoo xam ne am na yoo xam ne je pense que je pense que non ñun naxante non lii bul bul jéem a dëpp affaire dama ne tamit foog ma préciser dama ne président ñun loolu du suñuy méthode ma ni président Moustapha Diakhaté bi ci politique bi la nekk am waxuma la weesu naa sax loolu dama wax naa sax homme politique yi léegi homme politique yi sax waxuma la sax parti yi <laughs> politique bu nekk boo maytul am nga derrière ay nit yoo xam ne peut-être que c'est des journalistes sax ñoom ñooy nekk ci ginnaaw di la xeexal looloo fi xew foofu la jamono toll mhm. te yéen ñi nekk ci biir réew mi fii c'est un petit village donc ñëpp xam nañ ni donc bu fekkee ni aussi journalistes seen seen yoon ah dañ ko commencer ubbi ba commencé peut-être que di def ay prestation de service yu ëpp peut-être que mooy indi nit ñi ñuy am yenn yenn proximité yi ak certaines personalité loolu dafay yàq quand même neutralité bi nga xam ne moom fi nekk. xam nga def xarmat bi xarmat bi def ci bëri ci xarmat bi daf ci am donc en en réalité journaliste ak ñàkk journaliste réew mi dafa tas. Aïcha euh, Charles Charles laay jox parole booy. yàq yéene mujjee